yi ñu ngi leen nuyu sur 89.7 Zik FM wante it ñu ak ñi nga xamante ni ñu ngi si suñu plateforme digitale Sen TV Facebook l'officiel ku ci mel ni Pape Sakha Cissé euh, Mbayekou Cissé ak le Sénégal debout ñoom ñoom kan Mambay sa sa xarit yi ñoom Fatou Hadi Kana Julia Julia Fall Julia Fall nee na yow ak Pape euh, Ma Anta Mbow moom franchement yéen ay kiiwam bés ci wam ah. franchement mu nekk nit ku baax waa ci diaspora bi la bokk Mbaye Seye euh, moom it si la bokk Badara Sembène Badis moom it ci diaspora bi la bokk. Mhm. bari nañ lool nag ñu nekk biti réew. franchement diaspora bi moom. ca kaw ca kanam rek yàlla sàmm aar leen bu baax a baax musal leen ci mbas mi nga xamante ni mi nga si suñu àdduna bi def lu ko ne Mamadou Fofana kan ngeen nuyu li naan ni Badiane. lu bees dara de. non tiituma de. non non non. tey dafa ngànnaayoo masque tey kan laa war a nuyu tey. nuyu waa SGBS ñoom Noura. ah oui ah, oui Noura madame c'est madame Dieng. je sais pas. ah ok. Ndoura maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu euh, madame Taban waa SGBS ñooñ samay. suñuy xarit lañu. oui suñuy xarit lañu ah. Euh, di nuyu également le procureur de la République dem maa ngi koy wax tamit def liggéey bu am solo. au niveau du tribunal instance bu banlieue bi Pikine Guédiawaye xam nga yombul. Euh, mu di Amadou Seydi son substitut également Baye Thiam ñun ñëpp donc ñu ngi leen nuyu bu baax a baax ñuy nekk ñoo xam ne c'est des inconditionnels de la matinale. Mm. <laughs> maa ngi nuyu Anna Da Silva Senghor moom tamit inconditionnel la Birahim koy nuyu nag nuyu ku la neex. tout à l'heure de de la diaspora mais les députés de la diaspora vraiment ñu ñuy teewlu la ñu. Euh, ñu leen di nuyu bu baax a baax ñu leen député Mor Kane euh, mm-hmm. Nango Seck bu Rufisque euh, ak également suñu yaay Mame Diarra Fam ak tous les députés de la diaspora. parce que tamit ñoom dañ fa toog. également pour euh, euh, nekk assemblée nationale pour nekkal fa diaspora bi mais nuy également le sous-préfet de Dakar Plateau Djibi Diallo euh, mu am liggéey boo xamee ni bu am solo boo xamee ni mu ngi koy def par exemple ci feebaru mbas bi ñu nekk nii dafa jël décision comme Dakar nekk na zone bi gën a touché ci wàllug lii di mbas mi samp ay tente fa li nga xam ne moom mooy place de l'Obélisque pour justement désengorger yenn ci ay structures de, de bien, santé. C'est bien. Déjà je pense c'est une c'est une euh, bonne initiative. day jël ay décisions yoo xam ne yenn saa nit ñi xaw ko ci mere mais ce sont des décisions salutaires souvent oui. euh, pour ne pas dire euh, euh presque euh, chaque fois lu ci mel ni ñu nekk ci jamonoy mas mm. ay nit ñi koy jox ay demande pour manifester wala demande pour ngénte ay anniversaire ak yeneen ak yeneen Euh, ku ñëw mu ne la non non parce que tout simplement on est dans ah, une situation de crise je pense que c'est ça en fait c'est on on on saluait par exemple le le travail du gouverneur de Kaolack nga xam ne avant tabaski leneen ni bu ñu weesoo tabaski ay euh, soirée ay yeneen waaw il a il a pris ses responsabilités je mm-hmm. pense que également dans les autres Euh, collectivité territoriale ñii nga xam ne ñoom ñooy administration je pense que ñenn ñi ñu ngi koy def nag peut-être waaw ñu ngi jël seen responsabilité mais c'est une bonne chose donc vraiment chapeau a Diallo sous-préfet Dakar ñu ngi koy nuyu euh, bu baax a baax moom tamit euh, c'est un inconditionnel daf suivre di nuyu papa Doudou Wade bu baax waa l'honorable Pape Diop ak même le palais suit Ah oui, hein? Ah oui, ah oui, le, ah oui, le ministre euh, Ndoye. Mamadou. voilà ñu ngi nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu maa ngi nuyu it ah. sama tante yu baax tata Kiné turandoowu Kiné Rama sama waa jooju ak kii tata Ndeye Sena ba maa ngi lay nuyu ak sëñ ñu hmm. maam sama yaay ju baax jooju ñaa ngi koy nuyu bu baax a baax aywa léegi ñu dellu si waat nag ci coronavirus bi Birahim mi ngi koy wax léegi nii mesures yi nga xamante ni sous préfet Djibi Diallo jël na ko entre autres loolu la ñuy xaar sax pourquoi pas euh, si suñuy rédaction parce que actuellement euh, euh, critique moom dafa dellu si waat ci la nga xamante ni moo di virus bi nga xam ne mi ngi dugg ci biir rédaction yi mooy ñun suñu milieu de de de travail ñi ngi wax ni que ni si je peux le dire plus de cinquante au moins ñu nga xamante ni si suñuy suñu confrère la ñu jot nañoo euh, jàpp li nga xamante ni euh, moo di contracté li nga xam ne moo di virus bi euh, lan la ñu waroon a jël à l'avance balaa ñu doon egg ci li nga xam ne ñun nous sommes tout le temps exposés. xam nga la difficulté dans dans cette pandémie mooy justement am na ñoo xam ne mën nañu def télétravail. Mm-hmm. malheureusement am na ñoo xam ne mënuñu ko def. par exemple il est vrai par exemple ci presse écrite par exemple. Euh, nit ñi euh, ñu ngi def li nga xam ni moom mooy télétravail parce que presse écrite mën nga toog sa kër Euh, bind sa article avec les nouvelles technologies de l'information yaa ngi sa machine même le téléphone portable mën nga ci bind sa sa article avec euh, les applications Word euh, mais xam nga hier ou avant-hier je pense c'est c'est hier on avait annoncé par exemple suñu confrère yi nekk BBC Afrique au moins sept personnes am nañu li nga xam ne moom mooy coronavirus. Mm-hmm. Ah, nga dem ci yeneen i bërëb également ñu am li di Covid 19 li ko waral nag mooy déjà. boo xoolee euh, ni ñu tabaxee suñuy rédaction yi euh, yenn rédaction dafay tëju am climatisation te ñu bari gis nañu ni euh, en tout cas yenn scientifique ñi li nga xam ne moom mooy variant delta bi mën na circuler dans l'air surtout ci yenn ci ay bërëb yu ci mel ni yu tëju am climatisation alors ce qu'il faut nécessairement ni ñu koy dénkee ñeneen ñi noonu la koy dénkee suñu bopp mooy ñu def li nga xam ne moom mooy ay mesures barrières takk seen i masque ak yu ni mel euh, mais également bërëbu liggéeyukaay yu presse ñi ko mën mhm. nañu euh, jàppale mhm. également les reporters et euh, ñuy liggéey mhm. bu ñu waree def télétravail ñu def télétravail c'est-à-dire il s'agit surtout de préserver l'outil de travail mais aussi de préserver les travailleurs d'abord que ñu am ay outils de travail également. waaw bon bu ko waxee c'est plus par rapport ak ñoom muy rajo muy c'est vrai que télé par exemple nous boo ñëwee nañu def leen télétravail ce sera assez compliqué parce que peut-être les moyens yi nga xam ne yenn dëkk yi am nañu ko tu vas en France euh, bon au pif je prends un exemple France 24 bu ñu tollee ci bi ñu tollee ci yenn situation euh, liée à la pandémie euh, da ngay nekk sa kër euh, en tant que chroniqueur économique wala chroniqueur santé et cetera def sa chronique Euh, en direct peut-être ak WhatsApp wala yeneen i li euh, nga xamee ne moom mooy ay euh, logiciels yu ñuy utiliser qui te permettent de d'être chez toi et de pouvoir faire en direct peut-être ton travail ce n'est pas forcément encore le cas pour suñu suñu dëkk yi parce que peut-être les moyens ne s'y prêtent pas mais surtout pour la presse écrite par exemple mën nañ leen a jàppale ba nga xamee ni ils n'ont peut-être pas forcément besoin de se rendre dans les rédactions pour éviter vraiment rassemblement yi Parce que bon, ni par exemple dans ce plateau, sur ce plateau plutôt, il euh, a ce qu'on appelle les mesures barrières, peut-être amener des sensations. Tu peux te permettre d'être de, euh, de, ici, mais il n'empêche que comme dans toute structure muy entreprise bu mu mën a doon. Mhm. presse ak mhm. beneen. nañu respecter les mesures barrières. Oh, oh. te yàlla musal ñu ci feebar. par exemple fii au moins fii vague bu njëkk bi wala deuxième vague bi jëloon nañ yenn mesures yi. à l'entrée booy dugg euh, am na ñu tegoon fa benn dispositif bu nga xam ne mën nga raxas say loxo ñii dem sur le terrain ñu joxoon leen seen euh, bone yi amoon na benn mbuus euh, sachet bu ñu si defoon bu nga xam ne mooy tax peut-être virus bi du leen mën a du leen mën a wala ni ñu ciy waxante ci micro yi ba noppi it personnel bi amoon na benn partie bu nga xam ne ñoo doon liggéey ñeneen ñi nekk nekkoon euh, congé après beneen partie bi ñooy ñëw ñeneen ñi dem congé genre yooyu je pense que man war na mën a tax euh, dina tax au moins mu wàññi li nga xam ne moom mooy euh, conta contamination bi jëm ci li nga xam ne moom mooy corona coronavirus bi. et même mais même ci première vague bi d'ailleurs amoon nañu ay cas ci ci ci kii. <coughs> bi nañu bokk donc dëkk tamit ci ay kër ñoo xam ne dañuy feebar. amee doomu jàngoro bi ñu war leen ko mën a wàll d'autant plus que tey lii nga xam ne mooy delta wala delta plus on dira parce que euh, variant la boo xam ne nu muy wàllee dafa dafa gaaw maintenant c'est sur que kon comme journaliste yi ci biir ay nit nañu dëkk aussi euh, c'est très normal que ñu ñu ñu amee li nga xam ne moom mooy doomu jàngoro maintenant est-ce que cinquante journalistes ñoo amee boobu la euh, feebar je que c'est des chiffres yoo xam te ne nii yu ñu war a confirmer la par rapport li nga xam ne critiques yi nekkaay daal dina koy bind bon maintenant weesoo loolu tamit je crois tamit il faudrait que ci wàllum xeexu mbas bi suñu njiit yi tamit ñu jéem a proactif wala ñu jéem a anticiper sur beaucoup de choses oui parce que tey ñu ngi wax na ne vaccin yi doyul li ñuy amee feebar bi dafa bari mais il faut ñu ut alternative wala solution par rapport à ça mënuñu toog rek ne wéy nañu xaar ay vaccin vaccin yi nga xam ne ne ñi koy defar seen bopp seen i askan nañuy njëkk a jiital ba pare balaa ñu lay jox dëpp kon ñun kan nañuy atteindre immunité collective bu ñuy wax parce que bu fekkee ne plus de la moitié de la population tey vacciné wuñ leen cela veut dire que kon feebar bi daf fi des ba léegi. moom kay 1 que boo xoolee on est à 600 et quelques mille. sur une population de 17 millions d'habitants. fii la ne boo moytuwul dañuy nekk di vacciner que jugu ko kon feebar bi dafay des ba léegi te day gën a law maintenant on est en face d'un virus tellement dangereux et virulent il faudrait que ñu trouver alternative mooy lan tey jii gëm war nañ mun a mettre l'armée à contribution les hôpitaux dañoo fees nañ jël armée bi ñi ci bëri jàng nañ li nga xam ne moo jëm ci wàllum santé militaire mais ñu étaler ay euh, ay tentes yoo xam ne dañ koy teel a def parce que loolu da koy teel a prévoir bu ko defee buñ demee bu hôpitaux yi mënatuñ jël dinañ mën a jël nit ñi yóbbu leen soxla les hôpitaux de campagne par oui de campagne moom laay wax yi nga xam ne armée bi daawoon mais pourtant nañ ko fi ci l'image de du Cameroun ils ont mis à contribution la pharmacopée traditionnelle mu di fajum olof gi parce ñi di xam ne moo jëm ci il est avéré que am na ci yoo xam ne ne day faj mbir bi ñu encadrer ñi nga xam ne mën nañ ci te am nañ ci xam-xam mais ñu mën a solutionner li nga xam ne mooy loolu parce que mënuñu toog aussi di xaar loo xam ne ay nit dañuy dee comme ça tu ñu ngi di théoriser donc ñi ngi woo vraiment nous invitons suñu gouvernement bi ñu gën a dans ce sens mu di di anticiper di sóor la xam ne ñëwul aujourd'hui on parle de troisième vague mais en France on parle de quatrième vague et de cinquième vague. donc ñu ñu fexe